asalaamaaleykum internet 221 people dal leen ak jàmm ci seen xibaaru bés bi ñu dëjtal leen di gën a fës ci xibaar yi malade du Covid-19 depuis quelques semaines est annoncé en réanimation le célèbre comédien du GFM Kouthia vient de sortir de l'hôpital une information de dernière minute qui soulage ses fans ainsi que tous les Sénégalais jërëjëf internet 221 people ñu ngi leen di jox dig ak yeneen xibaar